الله عليه وسلم Pablo fi nga am Muhammad سفر سے موت رہے اختر سعود آمینی کی توجوی خان میرے تہین جو ملوی جب ہے موت اخری مخونا موت اخری میرے اختر سیدنا محمد اخبار علی اللہ چون نہیں نوارن کا بیو کم گا نوچن کی بیو بھی تکی سری حبیب جی بندوی مسکری سی حبیب رک توان جتان دوی bu dee sëkk waaye mu bokk it maa bay gis. xam naa ko ak man foo ko gis rek da koy gis. tabaarakallaa ñoo ngi suñu moto yeeg. عين لون نصبي وصية بن سيبان وضعية بضار سلمى وليلى وتلمت لبي منهن جنجرة لا تنفع عاتقة وبرد سم بنت سعد الكرم شخصية أجمعين جماع وين ظلم لباس سلمان واليوم مابد سواد ومعاند ومعاند العياد يا تختلفي شخصي العاجمال النيرة أبرام مجامة تكام قال فخو يا ويل عبرعة الدرة كده اسمع يسوق خيولا خاسر الكرمي محمد ترى محمد عظيما تلألأ في ساجدينا تنقل في مخرنا فخرنا إلى أن آخر المرسلين يرسل محمد بالمصطفى يا كان يوم الخيام حاضرين في هذه الحفلة الحفلة المباركة وأقول كلكم وأنتم بخير السلام عليكم دلن تتقن جندقلو سج حبيب كرل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل خاتم الانبياء مصطفى شهد الاشياء فات شوقي بحب خير البرايا مدار اللطف اكرم الكرماء سيد المرسلين هادي البرايا ولد الله والد الزهراء wax neexu leen waaye jóg leen taxaw yéen ñëpp ngeen màggal yéen ci bi waay. jeex na. waaw bu tabaarakallah ji boo ko gisee dañ cee am ndigal bu jógee ci xalifa maam Cheikh Jimbira ak ay doomam di dalal fii. suñu waa kër maam Cheikh Mouhamad Fadal mi doomu Cheikh Mouhamadul maam Mori Jimbira bu Cheikh Mouhamadou Jimbira daloon fi suñu soppeel Cheikh Sadou Samb nee na suñu bàyyi Cheikh Mbay Njaay Samba ko jur nee na maam moo ko defar ba ku nekk dégg nga ko ci réew mi waaye ku kàddu baayam yamoon moom romb na ko macha allah Cheikh Sadou sa sa mag sa nijaay nee na mi ngi lay dalal ci dëkk bi nee na xale yi nag dañ la boole woon ak moom nee na suñu jabaat baate ak ñu mu àndal ñoo ngi gërëm famille Jibril yëpp ak mbooleem ñi fi teew yëpp ngir yàlla ak diine ak islam yàlla yàlla fay leen duñu guddal. dañuy joxe cant yooyu rek duñu tudd kenn waaye sant nañu ñëpp ndax yàlla gis ñëpp ñi fi teew ñi ci biir ak ñi ci biti ak ñi ci organisation bi ak ñi ci def seen loxo yal na yàlla fay leen ci barke Cheikh Sadou Ali jërë ngeen jëf léegi desitu programme bi dañuy jox suñu sang bu tedd bi madame la maire. دي جابوتو شيخ نصادو حبيب الدمام بن طالب الخيار ناخ سونو جربات يي ني اي سوتو يرنت بي لون صلى الله عليه وسلم لب لو جيم تي كير شيخ سادو حبيب جارال نكو مو جوخي باكنا موم رك لا گم جيخ تي تاك جي نيغي لاي گرم اك مبولم ميغا اندال نيغي لاي ndax bu sëñ paate ñëwoon ci yow. nga soppental ko du ñu am tey courage. ba indi sang bu tedd fii ci biir chaque ak teraanga yi ko defal. nee na sëriñ bi bu jógee dana ko waxal boppam. waaye jéy ñoo ngi lay sant bu baax. dañu bëggoon nag. nga barkeelu ci ay kàddu. bu ko defee suñu mag Cheikh Nafa Fadal yëngu. boo paree ñu jox Cheikh Sadou li ma Seydi Hadji Malick doon wax moom la ñëpp di dégg yàlla yàlla defal ñu jàmm ah ñu ngi sant njaboot gi yëpp. waaw dama leen di xamal ni sama kaddu yi mën na ñàkk ginnaaw bi ñu sant yàlla bu wér. julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp nuyoo bu sell mun asalaamualeykum wa rahmatullah di jiital ci nuyoo bi suñu ay kan di waa kër Cheikh Mamour yi di leen wàcce seen wàccuwaay di leen dalal di leen tatagal di leen maswu macha allah di nuyu suñu kilifa muy sëñ Habib ak ay rakkam yu mu àndal yépp bàyyiwuñu kenn di nuyu tëggal ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam di dalal suñu gan macha allah muy Cheikh Saad bu Samb di ko dalal ci dëkk bi di ko ñaanal ak ñi fi ñëw ñëpp tey ron tànt bi te ñëw ci dëkk bi dugal bismillahi rahmaani rahim yàlla may leen ñu delluwaat ci seen jaboot ci yàlla ak mën-mënam bàyyi fi jàmm fekki jàmm waaye li beneen nuyoo ak ngërëm ñi nga xam ne ñoo tànt tànt bi teg di ci jiital ñaar ci ñoom ñuy samay doom nekk ay xale macha allah ci at waaye ku jëf-jëf ju toll nii ju jëfu xale muy paate ak aadama ne woon naa leen yenent bi kenn du ko tàntal muy échec boobu dañ ko gëm mooy moom bisam moo koy tàntal boppam réussite bu ci am moom la ku mu neex ku mu naqati dina métti nag ndax yàlla daraam yomb te lépp da koy jaay ma ni leen ngëm-ngëm la ak pas-pas te comme c'est première fala budd ngeen sonn waaye mujjantal ga di ngeen toog ne alhamdulilahi rabbil alamin te loolu rek la métti woon na waaye jeex na kon ñu leen di ñaanal ni ngeen ko commencé ren muy seen première édition yal na ngeen koy taxawe ba seen i di ko taxawe ci barki yent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi na kaddu ngërëm ak cant rek la ñi teew ci tànt bi yépp ak ñi nga xam ne ñoo ma gunge ma ànd ak ñoom samay rak ak samay mag waaye ma leen di seedeel ci biir tànt bi kenn 86 wala 92 bi ñu commencé di tantal Cheikh na Cheikh Saad Cheikh al Khalifa doomu Cheikh al Ramé doomu Cheikh al Khalifa doomu Cheikh na Cheikh Saad di ñëw fii di ronu tant bi boobaa bi léegi yàgg na waaye ba tey bi mi ngeeg man wala mi ngeeg waa kër na muy Ndeye Fatou Cissé. ku ko gën a bëgg ka Cheikh na Cheikh Sall boo koy nax nax ko ci loolu lu mu am waa ka Cheikh na lu muy liggéey ka Cheikh na Cheikh Sall koy lu rate nim jaat macha allah shérif yi fu dugg ci dëkk bi lu mu gàtt gàtt di nga jokkoo moom soit mu fekk la rooso wa ilaa nga fekk sa kër château mu teral la yaay bis bu nekk bis lay fay baa muy lebal bis Cheikh na Cheikh Saad bu amul tànk ginnaaw déedéet da gis yéen ci bi sallallahu alayhi wa sallam kon yéen na yàlla fay la na nga toog ko sa njaboot di la teral ci kër Cheikh na lépp loo ciy def ci kër Cheikh na Cheikh Saad bu yàlla na ko yéen ci bi sallallahu alayhi wa sallam fay donc kàddu yooyu rek la ñu amoon di ko yëkkati

شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله yàlla mu am بالذات عجبوا عطى بحال غيره لا تنسب قادره بفطرة الكمال أفطره في البقي والمآل فما له يكسب خير كامل فأصله بالكامل كامل تصب الشخصات الأبيض بسيبا شخص دائما ثابت محيه إذا ما مدح وهو خير الأنام مطلعا لا ابتداه من لخيره مدى إن خير الرائمة قد معزلا دلت شيئا خيرا أنا سميت هذا الورى من يفخم قيد قيد لو تسالخين معجف الشيخ محمد جد رب رب دردشيه

الكلام رضى إلى الأقدام وارتقى إليه بالفتح الجزل والتقى أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله مجد يا لمي مصدر mucho con mi dinero, الله وسجايا جوال الانتصاب لأحمد وفايز الخصم لك ميرادها يا لطارا يا دولة خطفت ببختها هذا المستشير كثرت الشخصات الأبي كان أرجل ذاتك المادة كما تلول من فاضل المادة وجه من فاضل من أصحاب الحجري من سجود سجر من انفجار الدولة خطف فراتا بيدي من لك يا يا يا وجمعنا وبكى شوق إلى محمد نذهب وجل سيدنا محمد وكما يقول من سيدنا محمد بلا نقل صلى الله عليه وسلم أنا نقل متبعي سيدنا محمد سيدنا محمد وتمقى جاي ماذا شخص علينا وجمعنا وبكى شوق إلى محمد màggal leen borom gànnaar man daal ma mooy Seydina Muhammad تأخذ بذكر حميد المجمع واشهد ان لا لا رب غيره جنة نصر ملكا كملا وارسل فينا احمد الحق قيدا نبي به خاتم جل وخط ولا شيخ جينا يا الله بروما مثلا الحبيب والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم نبيه وإمام المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلد لي نيم بولومي ديجيتال جنيو بي وكريون انتبي صلى الله عليه وسلم أكبر شرفاوي في الدليل ak ñi nga xam ne jotuñoo yegg si euh, te seen ñaan bokk ci li téye jotaay bi ak li ko waral ndax kuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa di ko tàntal boo gisee njabootam fa tabarakallahu xamal ni li nga doon sàkku yàlla defal na la ko loolu nag mooy li suñu bët mën a tege waaye yonent bi duñ ko tagg fenn te mu nekk dëgg te leeram te feesul dell ca jotaay ba mën naa am ñii xam ko mën naa am deesu ko xam kon nag ñu ngi yeesal suñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, di nuyu njabootu Cheikh na Cheikh Saadu njabootu Cheikh na Baari Dumaami waaye tey suñu buntu ci kër Cheikh na Cheikh mooy kër maam Cheikh Mouhamadou Jimbira ndax suñu way jur wax nañ ko léegi muy Cheikh Mbaye Ndiaye Samb addunaam yépp ci taggu yonent bi la ko def ah te ki ko suuxat ci taggu yonent bi jàngal ko yar ko ba ñëpp xam ko mooy Cheikh Mamour Jimbira ginnaaw bi mu tarbiyoo wuy juróom ma Cheikh Mouhamadou fu ne ànd na fa ak Cheikh Mamour yi eh, ci réew mi ak bitim réew fa tabaarakallaahu loolu nag ñaan nga xam ni moom la ko góor yàlla bu mag boobu ñaanaloon eh, tey rëccuwu ko ndax njabootam yépp fa tabaarakallaahu yàlla suturaal na leen ci tagg yonent bi eh, mu mel ni nag bu ñu limee ki nga xam ne mooy kilifa jotaay bi muy Habibou Dieye di nit ku baax di nit koo xam ne seet la ci góor gi waaye fa tabarakallahu boo ko gisee yar bi yàlla def ci moom ak ay teggin doo xam fu mu bokk ah, loolu nag mooy li yonent bi daan digal njabootam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 إله إلا الله محمد رسول الله Cheikh Sakho nee na xoolal yàlla mën na wala li mu mën ko demee ma de wala ba àgg sax fekk na moom yàlla Cheikh Sakho nee na sama borom wala yàlla àgg jigéen la sunu bay xel dafay sant waaye waaye léegi yàlla na wàññeeku ay tuuti di la jox sa wàccuwaay yow sa digganteeg Cheikh Mame Mory nga ñëw eggale kóllëre gi ak sunu bàyyi Cheikh Mbaye Ndiaye Samb yal na yàlla nga bët li koy aar muy ay xeefam du ko gis ñu ngi lay ziar bu baax di la tuubal di la jégalu. yàlla aji jege la képp koy mën na mawa sapa dina dig la nga jaxle ba tuddu keneen yàlla nee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sama jaam yi maa wa iza saadaka ibadi inni ujibu da'wata daa'i idaa da'aani buñ ma woowee rek ma ñëw aji wuyu laa moo tax Cheikh na Cheikh Sassou neen ko yow yàlla yaay xarit yaay latif yow yàlla yaay sama kon nag kay di nga jëriñ sax nee na أسأله يويما سبحانه من فضله صلاته على إمام رشده أيوة، Seydina ana soppi Seydina Muhammad ku bëgg Rasulilaay boo toog ci gën taxaw ca kaw ñoom màggal ki nii la mooy yamam yam yam yàlla Muhammad adduna yëngu-yëngu yi bëri na ku nekk naan may waaja waaye fii xaraka ku ma neex yëngu waaye fële jamonoy sakanaat la teg teg teg teg ila muhammadin ya allah mustafa moy jakkar lok Allah na ya Allah ya ko ci bolam ya mom sayyidina muhammad diko sujudal ya yalla na ko sidil te do bi sujjamu fi do bala sujjamu kay dem nañ ci adama telima dem nañ ci nuhi telima dem nañ ci ibrahima telima dem nañ ci musa telima yent yalla isa kenn ñemewul wax ya Allah kon nag yow xaw ma kuy tiit waaye bokkoo ci yow sayyiduna Muhammad xaw ma kuy jaaxle waaye bokkoo ci yow sayyiduna Muhammad jaamu nga maa ngi leen ko santoon ca àdduna yow nag matale nga kon nag ku liggéey ba noppi bu weer dee sañ nga tàllal ñu fay la yàlla ko naan sal duxta waswaxtu safa la ajal dama mu ñu jox na koo bëgg mu dem àjjana cheikh ma cheikh sa ko nee na sama maam la ñu yaakaar moo lay ramu muhammadu safina fil masari wa alihi wa sahbihi wa la sa jóge ci Medina moo jara sox sa jóge ci Medina xol bu ko bëgg sa yàpp yaram araam na safara safara araamal na lakk yaram moo xam ne xol ba ca nekk dafa bëgg rasulallah affaire bi man mii daal sa nekk sa xaraamun alayhi naa Bepokal kudu kesina Muhammad Sayyarat aram Allah di Allah Muhammad Sekitar jamaah Ya Allah Ya Allah Kami kunci wa duha Bina Rasulullah Menepuk diri Sama korong Dujib juman ada ini Negeri mana misi yang mencisamahkan Ini umat menarku dugal safaran kon wax leen jërëjëf Seydina Muhammad Allah wa Allah yàlla buur bi سنت يننتبي أه، ويننتبي أمن صلطر وخلي المصطفى خير الأنبياء أنا بأسوأت لدي نبي المصطفى خير الأنبياء

وسلم من شهر جدي عبد المطلب إلى صهر ولدي عبد الله ابن فاطمة المعصومية على خضراء صار الله بين الأنام وكان يتظل في جبني كالكواكب الدرية Fatahat bin Nusiha Fakala la arda bil haram Yalla ya jalale Rusayiduna Muhammad Kini kumam Abdul Joko Abdallah Maradil Mustafa Balai denyewe Ke Abdallah Abdallah Gena taruh Nak taruh Arab Baca ya mom Muhammad Kiko Ganesi jigéen ñaa ngay ñëw ca moom abdallah di la arda bil haram duma def lu ñaaw ci leer mu sabaaji ba ñëw ñëw yéen ree bëri ca moom na daw ca baayam abdul muttalib ñu yóbbu ko kër bàyyi fa tazawaja abdallah bi aminatil batulil mardiya jël nañu abdallah dénku ko sona amina jox nañ ko ngeen gi jigéen guddik ajuma la nu ànd ñoom ñaar wulida muhammad ëmb nañu mbër ma wulida muhammad ëmb nañu rasulallahi yatiman ci ngirim lañ ko ëmb moom seydina muhammad ndax lu ko waral ba aminatu amee ñaari weer la baam abdallah takk ndigg la dem ci njëgg di jënd ak a jaay di dajale nan dama fas yéene ngénti ngénti lu rëy ndekki du ñibbisee Abdallah nga daanu feebar mbokk yaa ngi ko naan Abdallah ana lu tax ngay jooy te nga bàyyi sa jooy xanaa xamoo feebar sore nag dee Abdallah naan leen feebar ragaluma dee waaye Seydina Muhammad mi nar a ñëw sama ginnaaw duma ko gis ak bët loolu lay jooy xadaa bi abwaab la te abwaab dem na waaye xoola keroog bis bi ñuy Abdallah Amina doo ngay léebu leen ba ni Yaasin jeex ndax ci doomam caatu Abdul Mutalib tey génn na duniya yéen a ko teg ci jaar mënu leen a dox ak moom Abdallah yéen a ngi joxante jaar ci ngir mbooloo mu bari di yóbbu sama borom kër yéen a koy denc ci suuf mi ngi génn niir yi di dem ci suuf waaye man Amina tiitalu ma ko lënd maayu bàmmeel ak xataay bi tiituma ko bàmmeel dina am yërmande ci moom. ndax ku ma yërëmoon laa man soxna Amina ndeke booba la mu naan ban yaasim jeex nañu yëgul ne dafa ëmb ëmb baa ngay dem ëmb baa hati ba wax naat mooy Muhammad ndeke la wax ak moom wax naat góor gi Abdul Mutalib tur bu seet fii miiri turu yàlla man de tak na sama fit japp loo ci muhammad wallahi waaw ñu ngi sét témer yu tur yalla ha ah? ku nekk ñu nan gis na ko ci muhammad ndax alquran limu muy yaatu yalla ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi tur woowu du jaxal te yalla ko tudde bopam sallallahu alayhi wasallam. sallam sanjaba jamadina juróom ñeenti weer lañu ëmb rasulallah ee eh, aminu nee na yëguma dara lu dul dégg bi di su ma déglu dégg sang bi muy tudd yàlla sama waa ji du ñii te

salaata wa salaam yonent bi min maalikil mulki salaam alayka yaa daa'i salaam xus bi yadi yaa sayyidi ana soppe yonent bi sama waa jënd nii loxo ca kaw magalabi. xaasidiin ah tabaarakallaahu ah bi dafa am nu mu tëddee ah, te defe naa ni sunu yaay ju baax ji Aja Mariam junjuñu ko mooy barab la boo xam ni tey ñëpp fi daje waaye li nga xam ni nag moo waral sargal bi mooy maam Cheikh Mouhamadou Jimbireel ah, xam nga sama baay Cheikh Mbaye Ndiaye Samb dafa. Fenton Air boobu ñuy wax mës naa nekk mbuur bàyyi ko fa dem màndi booba Cheikh Jibira daa nekk mbuur ba mu yàgg mu jàll ci àll boobu ñuy wax campement Ngexoox waaye bi mu nekkee campement dagg fa ectare yu yaatu ñu daggal ko fa mu gas fa teen teen bi bënnul mu gasaat beneen teen teen bi bënnul ba ko xaal bi dikkalee ñettelu teen ba da kër du mu far doon ak dex bu fii may ak yow boo demee dafa dog tali ba pont lañ ko defal mooy booy dugg campement foofu ci parc bi ñuy wax bànja moo tax góor gi ne mës naa nekk mbur bàyyi ko fa dem mandi gas fa ñaari teen ñetteel ba ñëw di ndaw si dex googu mu tuddee ko ndaw si ah mu mel ne nag man tam bi ma ñëwee di way góor gi te xam naa ni li ci Cheikh Mbaye Ndiaye Samb way jafe na nit jaaraat ci te ñëpp dégg nañ ko ma ne la ko Cheikh na Cheikh Saad bu waxoon moom laay jël way ko ndax Cheikh na Cheikh Saad da koy xool ba mu yàgg mu ne ko Cheikh ma jimbira ana bët lan moo ciy gis mu ne ko ah dara boo ma ko xamalul de xaw ma ko mu ne ko li bët bi yaatu yaatu ak li muy weex weex weex ak lu ñuul li ci digg bët sew sew boobu ci digg ba muy ñuul ñuul boobu mooy waral bët di gis kon nag yow Cheikh jimbira bis ni ki tey def naa la ngi sama ñuul ñuulu bët motax mané ko cheikh sa bu beutam ye ya, beut ya du beuti neen té ñool ñool ba la jël def ko muy mam cheikh jimbara kon ñu bakk ko rek ñepp jog ñu magal cheikh jimbara bu ñu noppé dugg ci wawan bégal njabootu cheikh sidiyaj malik wala jaru ko bu ñu noppé bakk njabootu cheikh ahmadou bamba tay la musa ñaaneer waaw man dama bëggoon nga ñëkke genn na dunya bo paré nga dem bobu mu fin waaw waaw xam nga am nga fii ak fii mbuur jegeñul te defe naa ni temps bu gàtt lañuy am ngir bu nu yàlla yóbbu jàmm ñu dallu ko ngir mën a dem enchaîner liggéey bi bu ko defee rek danga maa ñaan eer maa ngi la koy ñaan waaw léegi kon ñu def ko dunduna duniya waaw kon ñu way ñaar yëpp ko insha allah bu soobee yàlla dunduna duniya jublu yàlla